asalaamaaleykum gars maa ngi leen di nuyuwaat di leen ak jàmm ci Sen Sport 221 the best sport channel équipe nationale bu Sénégal ci match bi ñu war a am seen diggante ak Zambie fileek ñaari fan ci samedi ji lay doon ki nga xamante ne mooy sélectionneur national di Aliou Cissé li mu pare ci jamono mooy dal di delloosiwaat 4-3-3 bi nga xamante ne moom la ñu xamoon équipe bi kon système dina dellu si jamono yi nag buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar ki nga xamante moom na li mu xamle mooy man li may li ma pare pour teg ci match boobu duma leen ko wax waaye daal buñ jàngatee ci li nga xamante ne mooy préparation yi ak ci biiri kàddum rek li ñu xamle mooy kii di Aliou Cissé li muy teg ci match boobu la mooy système 4-3-3 bi moom lay delloosi moom sax dal dinay xam ne ne ñu ngi liggéey ci ci bépp système bi nga xamante ne pare nañu ngir joué ko ndax gis na ne suñu joueurs yi mën nañoo joué ci système yépp waaye nag moom xam la ne carrément ne liggéey nañ ci système 4-4-2 ci fan yi nga xamante ne ñu ngi waajal joŋante yi liggéey nañu itam ci 4-2-3-1 moom Aliou moo ko xamle waaye itam nee na ñu ngi liggéey jamono ci li nga xamante ne mooy système 4-3-3 buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi jàngat ne ñu ngi koy bàyyi xel. ci tàggatu yi ak wàccaay yi joŋante yi ki nga xamante ne mooy sélection nationale coow li nga ne xewoon na ci 3-5-2 bi. waral na ba jamono yi waxut sax lu ci jëm li mu pare ngir tegaat ci match bii ñu jëkkmal dëkkmal mooy li nga xamante ne mooy système 4-3-3 ñaari fan ci des dinañu xam ana lan mooy xew ci bés boobule bu ñu jógee ci loolu dañuy wax ci bitim réew Kalidou Koulibaly gannaaw bi nga xamee ne jamono kii di Carlo Ancelotti mooy sélectionneur wala bokk entraîneur bu Real Madrid jógee fële ci Everton kii di xibaar yi nga xam ne ne jamono bunt yi ubbeeku na ngir kii di Kalidou Koulibaly dem foofu la ci Real Madrid ndax ki nga xamante ne mooy Carlo Ancelotti moom xam na Koulibaly bu baax a baax ndax euh, coaché na ko euh, ci saison 2018 2019 foofu la ci Napoli tey it bu ngeen fàttale ko ay at ci ginnaaw Real Madrid bëggoon nañu signé ki nga xamante mooy Kalidou Koulibaly waaye daal ñu laxasoon ci jaan maanaam price bi daal dafa yéegoon njëg gi dafa aju woon lool ba nga xamante ni taxoon na ba ñii di merengue dal di woon dellu ginnaaw jamono nag kii di xibaar yi wéral nañu ne ki nga xamante mooy président bu Napoli moom amatul benn choix dafa dal di wàññi njëg gi bu baax a baax te it ki nga xamante ne mooy Carlo Ancelotti dal dina dellu siwaat foofu la ci xam nañu ne kii di Raphaël Varane benn at moo des ci contrat am amaan kii di euh, Sergio Ramos moom contrat am moom daanaka jeex na ba pare ay fan képp ci des ci mois de juin bi ñu nekk ci lay jeex te ki nga xam ne mooy Ancelotti amaan na dina am benn ci joueur yooyu koo xamante ne dina fa des waaye li gën a wér mooy faw am ku dem donte ne sax ñaari yëpp du dem ak lu mën a xew kii di Kalidou Koulibaly moom bu fekkee kenn génne na foofu la ci Real Madrid amaan na moom mooy doon kii dugg si kay di xibaar yi wéral nañu ne kon jamono yi kii di Kalidou bu dee bàyyi na Napoli mu dal di fekk kii di ancien entraîneur bii di Carlo Ancelotti foofu la ci Real Madrid beneen joueur bi nga xamante ne jamono yi moom itam daanaka mu ngi jubale foofu la ci Espagne mooy kii di Youssouf Sabaly moom nag kii di xibaar yi wéral nañu ne moom njii di waa Real Betis ñoo ko bëgg a te it li des ci mbir mi daanaka bariwul ki nga xamante ne mooy Aliou Cissé bi mu doon laaj ci kii li nga xamante ne mooy conférence de presse bi mu doon amal bi ñu ko laajee mbirum Youssouf Sabaly dafa daal di xam ne ne Youssouf Sabaly dafa dal di delluwaat France a maanaam raison personnelle moo ko tax a delluwaat foofule ca kii di xibaar nag daal dinañuy wéral ne amaan na kii di Youssouf Sabaly euh, li nga xamante ne mooy transfert am boobule day waaj a sotti xañ na ci loolu moo waral ba mu delluwaat foofu la ca euh, ca France kii di xibaar wéral nañu Real Betis ñoom jamono yi gannaaw bi nga xamee ne ñàkk nañu seen latéral droit bi nga xamante ne mooy Emerson ndax day delluwaat foofu la ca FC Barcelone delluwaat na foofu la ca FC Barcelone ki ñu ko pare remplacé mooy kii di Youssouf Sabaly toll xamante ni contrat am ak Bordeaux moom daanaka ndax ay fan ci des ci mois de juin te jàpp nañu ne amaana kii Youssouf Sabaly fan yu néew dina nekk joueur Real Betis. Emerson moomule sax kayiti xibaar dal dinañuy wéral ne jamono joueur Barcelona dal dinay delluwaat fële ca Barcelona ndax bu ñu fàttale ko lu toll ci ñetti at ci ginnaaw ñii di Barça ñoo ko dal di woon jëndee ci club bi nga xamante ne mooy Atlético Mineiro waaye nag ñu daldi ko woon jaayaat ci club bi nga xamante ne mooy Real Betis kon ñii di Barça dañu ko jëndaat. li ñu bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi nag Barça jaaye woon nañu ki nga xamante ne mooy Emerson Royal lu toll ci 6 millions d'euros waaye nag ñu ko dal di jëndiwaat foofu la ci Real Betis lu toll ci 9 millions d'euros moom nag jamono yi moom Emerson mu ngi toll ci 22 ans mu ngi war des foofu nga xamante ne mooy ci FC Barcelone. Jules Koundé moom mi nga xamante ni jamono yi kayiti xibaar yi wéraloon nañu ne Real Madrid bëgg nañu ko signé jamono yi kayiti xibaar yaa ngi wéral ba tey ne Manchester United ak FC Barcelone dugg nañu ci xeex bi kon ñetti club yi yëpp jamono ñu ngi xëccoo ki nga xamante mooy Jules Koundé toll ci 22 ans jamono nekk foofu ci FC Séville Manchester United Real Madrid ak Barcelone ñooy xeex ngir xëccoo ki nga xamante ne mooy Jules Koundé war ko jëlee foofu la ci FC Memphis Depay moom nag gannaaw bi nga xamee ne kii di xibaar yi ñu ngi ko doon annoncé foofu la ci FC Barcelone jàpp nañu ne jamono yi mën nañu wax ne wax ji moom sotti na li des kay mooy ñu officialisé li nga xamante ne mooy euh, signature kii di Memphis Depay kayiti xibaar yi wéral nañu ne vidéo présentation bi nga xamante ne moom la moo mooy fésal li nga xamante ne mooy signature boobu lee sax defar nañu ko ba pare moom nag dina signé contrat bu toll ci ñaar wala ñetti at moom ki nga xamante ne mooy Memphis Depay kon daal kay xibaar ne moom am na ci diggante Depay ak ñi di waa Barcelone li des rek mooy ñu dal di koy fësal bu ñu fàttale ko nag fan yi moom Barcelone dañu actif lool ci marché bi ndax ñetti fan yi ñu weesu dal dinañuy signé ñetti joueur mooy Sergio Kun Agüero ki nga xamante ne mooy Eric Garcia ak ki nga xamante ne mooy Emerson mii ñu signé tey Sergio Kun Agüero moomu ne sax kayiti xibaar yi wéral nañu ne moom dafa dal di wàññi li nga xamante ne mooy salaire am bu baax a baax gannaaw bi nga xamee ne mu ngi ñëw signé foofu la ci FC Barcelone ndax buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi mu ngi doon fayakul toll ci 23 millions d'euros la doon fayeeku ci Manchester City chaque saison waaye jamono yi moom 6 millions d'euros képp lay fayeeku foofu la ci FC Barcelone. kon njëg gi maanaam li nga xamante ne mooy salaire am bi mu doon fayeeku foofu la ci Manchester City mën nañu wax ne daf ko wàññi bu a ñëw jouer amaana dafa bëgg a gagné li nga xamante mooy Ligue des Champions ak ñi di waa Barcelone. mbokk mi nga xamante ne mooy Lionel Messi moom kay di xibaar wéral nañu ne moom waxtaan bi ak Barcelone moom lépp sotti na li des rek mooy dal di signé kon Messi jàpp nañu ne xëy na filee ki fan yu néew dinañu dégg ne dinañu officiel officialiser li nga xamante ne mooy signature am muy ñaari at yooyu nga xamante ni dal dina koy déggoo ak FC Barcelone kon Lionel Messi moom di capitaine Barcelone dina des foofule buñ sukkas ndekoo ci kayiti xibaar yi seen entraîneur bi nga xamante ne mooy Ronald Koeman moom nag ëllëgam ba tey ne nañu leeragul waaye nag kii di xibaar wéral nañu ne ki nga xamante ne mooy Laporta dafa pare ngir téye ki nga xamante ne mooy Coman ci beneen saison maanaam dal di may chance beneen at ba xam ndax dina wane boppam jàpp nañu ne daal semaine bii moom balaa ñu koy jeexal maanaam semaine bii ñu dëkkmal bopp balaa ñu koy génn dinañu xam lu leer ci ki nga xamante ne mooy ëllëgu Ronald Koeman ndax day des foofu la ci FC Barcelone wala day dem ak lu mën a xew fileek fan yi néew dinañ ci xam dara ki nga xamante ne mooy Carlo Ancelotti dellu siwaat bi mu dellu siwaat foofu la ci Real Madrid kayiti xibaar wéral nañu ne Gareth Bale mi ñu doon na ne ki nga xamante ne mooy Bale dina koy séntu moom daal ay pexe daal ba ki nga xamante ne mooy Bale delluwaat foofu la ci Real Madrid dal di wanewaan boppam ndax bu ñu fàttale ko nag Ancelotti mooy ki indi woon foofu la ci Real Madrid te it ànd bi mu àndoon ak moom mën nañu wax ne lu amoon solo la ndax bii yu bari ak passe décisif yu bari la dal di woon am ci roon ki nga xamante ne mooy Ancelotti ci ñaari at mu def ak moom foofu la ci Real ki nga xamante ne mooy André Onana Onana mi nga xamante ne moom mooy gardien Ajax bi nga xamante ne dañu ko ajoon ndax lu jëm ci wàllum dopage. dañu jàpp ne moom ki nga xamante ne mooy Onana dafa di woon euh, jël maanaam dafa feeloon li ñuy tuddee drug test ndax da jàpp ne dafa doppe woon lii nag waral na ba ki nga xamante ni mooy. kii di Andrés Onana dina dem foofu la ci Arsenal kayit xibaar wéral nañu ne ñii di Arsenal dinañu ko signé ci njëkku gu toll ci benn million bu toll bu tomb juróom-ñaar téeméer ci ay junne. waaye nag mu ngi aju ci transfert bi ndax bu fekkente ne kii di Andrés Onana li nga xamante ni mooy aj benn at bi ñu ko ajoon noonu bu fekkente ne ñii di waa FIFA dañu ko daal di teggi wala UEFA ki nga xamante ne mooy Andrés Onana kon Arsenal dinañu fay lu toll ci 7 millions d'euros waaye bu fekkente ne loolu teggeeku wul ndax dafa war a toog at boo xam ne du ko football kon ñii di waa Ajax benn million képp la ñuy jot bu toll juróom-ñaar téeméer ci ay junne euro. ki nga xamante ne mooy Donnarumma bi nga xamante ni moom day bàyyi AC Milan ndax contrat am kat dafa jeex wala daanaka jeex na. te ñu koy annoncé fële nga xamante ni mooy ca Paris Saint-Germain kayiti xibaar yi wéeral nañu ne kii di Mourinho Mourinho bi nga xamante ni mooy entraîneur bu AS Roma bu bees bi moom nag jamono yi dafa dal di wax Roma ñu def ay pexe ngir signé ki nga xamante ni mooy Donnarumma ndax moom daf ko soxla ci équipe am bi buñ sukkas na ko ci kayiti xibaar yi nag Mourinho bu dijj bu dëgër bi nga xamante ne day mën a jàkkaarloo ak équipe yi gën a mag foofu la ci Europe loolu moom joueur yu mag yi rek jamono ñoom la teggat kayiti xibaar yi wéeral nañu ne kii di Mourinho dafa bëgg a indi ki nga xamante ni mooy Donnarumma foofu la ca AS Roma Tottenham moom kayit xibaar wéral nañu ne jamono seen waxtaan avancé na bu baax baax seen diggante ak Carlo Ancelotti kayit xibaar yaa ngi wéral ne sax ki nga xamante mooy Ten Hag bi nga xamante mooy entraîneur bu Ajax mu ngi ci liste bi waaye daal jamono yi ki nga xamante moom la ñuy waxtaan ci jamono mooy kii di Antonio Conte Antonio Conte bi nga xamante fan yi rek la bàyyi ñii di waa Inter ki nga xamante ne kat mooy Mauricio Pochettino moom la ñu doon bàyyi xel amaana dina bàyyi Paris Saint-Germain waaye nag ñii di parisiens yi pare wuñu benn yoon ngir bàyyi kii di Mauricio Pochettino moo tax Tottenham jamono yi ñu ngi ci diggante kii di Ten Hag ak ki nga xamante ne mooy Antonio Conte te waxtaan baa ngi avancé loolu diggante Conte ak ñii di waa naam ki nga xamante ne mooy Moïse Kean mi nga xamante ni moom Everton dañ koo able woon foofu la ca Paris Saint-Germain kii di xibaar yaa ngi wéral ne Parisien yi li ñu pare mooy ñu abalaat leen ko beneen yoon maanaam beneen at bi nga xamante ni dina ko def foofule ñoom nag pareeguñu ko ngir jënd Everton nag ñoom dañu insister ne ñoom dañu koy jaay cinq millions d'euros bu fekkent ne Paris Saint-Germain pare nañu ngir fay ko ñoom dinañu bàyyi kii ni Moise Kean waaye nag lu aju ci ndax dañ leen ko awalaat beneen saison loolu mu ngi aju ci entraîneur bu bees bi ñëw remplacer Ancelotti kooku bu ñëwee mooy décider ndax dafa soxla kii ni Moise Kean foofu la ci Everton bu dee dafa bokk ci ay projet moom kii di Moise Kean duñu ko abal Paris Saint-Germain xanaa ñu fay 45 millions yi nga xamante ñu leen koy laaj kon dinañu xam fi fan yu néew kan moo war a utu Ancelotti ci loolu la ñuy xamee ëllëgu ki nga xamante ne mooy Moise Kean a signé ne mooy Kieran Trippier mi nga xamante ne moom foofu la ci Atlético de Madrid la nekk nekk ancien joueur Tottenham Manchester United ñu ngi def lépp lu ñu mën pexe yu mën ñu ngi koy def jamono ngir signé ki nga xamante ne mooy Kieran Trippier daal di koy delloo si foofu la ca English Premier League bi